Christian Sambou maa ngi lay nuyu. madame Moreau soxna si maa ngi lay fay. Christian Sambou nga nekk expert en géopolitique euh, déjà euh, njiitu réew Sénégal di amal ab euh, visite fële ca France Bassirou Diomaye Diakhar fay lan mooy enjeu visite bi. bon visite bi bu am solo la dañ ko invité ci waxtaan yu ay njiitum réew tamit ay euh, expert war a am ci lépp luy vaccin lépp luy garab bu ñuy defaree ay vaccin mais ci ci visite visite boobu dañu war a jàngat tamit euh, war a war a distinguer lépp luy visite ci wàllum boobu wàllu boobu mooy euh, visite multilatérale invitation pour participer ci forum boobu ak visite de travail d'amitié ci ci wàllum ñaar ñaar ñaar état donc ci cadre visite bi visite euh, de travail la enfin visite euh, invitation laa bëggoon wax invitation la participer ci forum mondial euh, pour la souveraineté et l'innovation vaccinale boo xam ni union européenne moo ko union africaine moo ko organisé alliance du vaccin ak ak waa waa donc opportunité bu opportunité la pour président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mën a mën dëgguwaat ci euh, position Sénégal ci wàllum euh, defar vaccin defar euh, médicament Covid jot na jaar fi te ci wàllum vaccin Afrique Afrique balaa muy jot ci vaccin yi dafa xaar ba yeneen dëkk yi mën ci mën ci jot mën ci serviru Euh, bu ñu paree nag nañ door a jot euh, jox euh, Afrique vaccin vaccin yu jot a des donc loolu lu ko waral mooy manque de souveraineté tamit bañ moom sa bopp ci ci defar defar vaccin donc visite boobu ci wàllum woobu la am solo. Mmh. mais pourtant ñu ñu bari dañuy xaar ci visite bi président bassiru Diomaye Diakhar Faye euh, tase ak président français bi di Emmanuel Macron. bo en tout cas dal boo demee bitim bitim réew boo demee réew réewu jàmbur lu gën a normal ci njiitum réew mooy nga rencontrer beneen njiitu réew bi donc lu normal la euh, lu ñu mën a jàngat la ci aspect normal aspect bienséance euh, en diplo diplomatie donc euh, loolu tamit visite de prise de contact lay doon donc pour la pour la pour la première fois mais dama bëgg daal ñu ñu distinguer ñaar visite yooyu bokkuñu luy yóbbu Bassirou Diomaye Diakhar fay euh, Paris mooy d'abord visite dans le cadre en fait de euh, de de de l'innovation vaccinale euh, loolu moo koy loolu moo koy yóbbu Paris après bon bu discuter ak naatangoom Emmanuel Macron euh, c'est c'est dans un autre cadre pour gën a xamante la mën a mën a waxtaan peut-être ci sujet sujet yoo xam ni dina soxal ñaar ñaar réew yi tamit Hmm. est-ce que mën nañu xaar ay euh, terme euh, terme partenariat yu bees tàq ci diggante euh, Sénégal ak France parce que xam nañ ni président Diomaye li mu woo te mooy rupture aussi partenariat yoo xamante ni Sénégal def si gis bu boppam bu baax a baax est-ce que peut-être mën nañ xaar si visite bi si jamais président Macron dalal ko mu aborder question yu ni bon je pense que dina dina xaw a teel trop pour ñu am déjà ay termes de référence ci seen euh, ci relation entre ñaar ñaar réew yi parce que euh, ob nekkul nekkul objectif principal euh, visite Diomaye Diomaye Paris mais bon ci waxtaan nag mën nañu mën nañu discuter ci ay ay points ay points yu bëri donc tel que point yu mel ni CEDEAO mën nañ ci mën nañ ci mën nañ ci waxtaan point yu mel ni AES base militaire française yi waa CEDEAO donc lépp luy euh, wàllum kaaraange tamit ci euh, ci Afrique de l'Ouest loolu mën na nekk ay sujets yoo xam ni dañ koy dañ koy yëkkati mais ci lu ma yaakaar mooy Bassirou Diomaye dina xaw a euh, profiter ci ci visi ci déjeuner boobu rencontre déjeuner boobu pour gën a expliquer tamit projet bi xamal Macron lan mooy lan mooy lan mooy projet bi parce que France luñ ci mën lu ñu mën a wax wax luñ ci mën mënti wax rek mooy France. premier partenaire euh, Sénégal ci wàllum commerce donc euh, lu ñuy euh, lëkkaloo bi ci wàllum commerce xaw na xaw na xaw na bëri torop mais Bassirou Diomaye dina xaw xaw a nekk à l'aise tamit ci ci contexte contexte bi parce que président bu bees la donc démocratiquement élu euh, war a dem France tamit war a discuter ak naatangoom ci contexte bu xaw a doy waaru parce que rassemblement national Euh, ñoo gagné élection européenne yi te France mi ngi dem ci législative euh, le 30 juin donc contexte de crise la boo xam ni rassemblement national mi ngi aux portes du du pouvoir mais tamit contexte la boo xam ni euh, France nekkul ci ay relations yu yu yu ratax ak Mali Niger Burkina mais même tamit ak yeneen anciennes colonies comme Nouvelle-Calédonie. donc loolu yëpp contexte boobu yëpp tax na euh, Bassirou Diomaye dina xaw a dina xaw a féex ci euh, discuter ci point yu bëri ak euh, ak naatangoom comme wàllum souveraineté ci franc fa ci base militaire française ci CEDEAO mm-hmm. parce que tey Sénégal partenaire la boo xam ni mën nga waxtaan ak moom ci lépp luy jëmale ci Afrique sous région CEDEAO Mmh. est-ce que aussi posture premier ministre leaderu Pastef Ousmane Sonko amul lu mu mën a gàkkal euh, ci euh, partenariat relation diplomatique diggante Sénégal ak euh, France parce que ñëpp gisoon nañ euh, euh, Ousmane Sonko ni mu accueillir Mélenchon fii ci ci réew mi. ci sama jàngat daal euh, ci discours Ousmane Sonko bu mu accueillir Mélenchon ICAD luñ ci mën a jàngat mooy dafa jotoon teg base base yoo xam ni mën na doon ay base discussion euh, jot na ci wax ay relations déséquilibrées entre France ak ak Sénégal donc peut-être loolu mooy mën a nekk discussion yi tey entre Diomaye ak ak ak Macron donc sox tamit loolu mérite boobu la am mën a wax euh, ci kaw loo xam ni gars yi dañ koy rumandaat donc euh, euh, tey bon xam nañ que bon relation yi dañoo yàgg déséquilibré xam nañu tey position waa PASTEF ci lu ñuy woote rupture ci relation yi donc ñuy woote rééquilibrage euh, relation yi entre ñaar dëkk yi muy ci wàllum commerce muy ci wàllum politique wàllum diplomatique te lu gën a am solo sax ci discours Ousmane Sonko mooy mooy le fait que mu reproché Macron Euh, jàppale bu mu jàppale Macky euh, Macky Sall mu daan euh, xoxotal waa waa Pastef leader Pastef yi jàpp di leen tëj surtout tamit di gaañ ay manifestants yu bëri di tëj ay prix ay manifestants ay manifestants yu bëri. Hmm. bon xam naa Sonko loolu la daan reproché régime régime Macron mais ci ci ci waxinam tamit jot na préciser que loolu loolu du du gàkkal seen seen seen relation ci waxtaan. entre diggante France ak ak Sénégal donc euh, mérite boobu la am tamit Sonko mën wax ci kaw loo xam ni euh, ñu bëri euh, dañ koy dañuy choisir noppaale ko. Mhm. ñu wax ci ci beneen ponk bu am solo Christian Sambou di Sénégal fiñ tool toll nii nag réew la boo xam ne producteur de pétrole la ban bët la àdduna bi fiñ ñu toll nii di xoole Sénégal. waaw Sénégal daal dugg na ci club restreint yi yoo xam ne dañuy produire euh, pétrole ak ak gaz euh, donc gaz boobu balaa ñuy ñuy wax ci ban bët la euh, askan wi askan wi dañu xoole bët bët forcément du bët bët yu baax tamit parce que ñu bëri bëgg nañu am lu ñu am tey mooy pétrole pétrole ak ak ak gaz mais daal wax ni daal que opportunité. opportunité bu bu baax la pour euh, le peuple euh, le peuple sénégalais euh, sénégalais ko nga xam ni moom moom moom pétrole ak ak ak gaz donc opportunité opportunité la tamit parce que ñu ngi exploité pétrole bi ci contexte bi nga xam ni que am na nañu am na nañu jàmm am nañu stabilité suñu institution yaa ngi dox bu baax a baax te suñu autorité yu bees yi donc démocratie lañ leen fale de manière tout à fait souveraine te euh, Sénégal donc sénégalais yi nekkuñu ci guerre donc euh, entre ñoom te suñu suñu suñu takk der yi euh, ñu ñu ñu ñuy aar bu baax ci frontières yi ci menace su su su su régional yi contexte la tamit boo xam ni bon muy yow muy man xam nañu lan mooy suñu besoin économique suñu besoin de développement ci wàllum chômage ci wàllum wàññi wàññi njëg njëg njëg njëg bi ci wàllum mécanisation de l' agriculture euh, ci wàllum augmentation pouvoir d' achat loolu yëpp am na solo ci euh, ci besoin askan wi tey moo tax pétrole bi war na dem ci faj faj faj jafe-jafe askan bi plutôt que plutôt que servir euh, ay intérêt ay intérêt personnel mm. donc war war tamit yokku yokku yokku vigilance yokk par rapport ak suñu sécurité parce que voilà nous sommes dans une Euh, dans une région quand même en, en tension donc loolu yëpp euh, war na tax ñu gën a yokku euh, vigilance mais pour loolu am foofu tamit autorité yi def transparence ak bon gouvernance par rapport à notre ressource ressource yi njëri askan bi njëriñoo ci ressource yi bu loolu bu amee rek xam naa lépp dina dina dina dina dina dina dina dal nañ mun a bi ci dal Euh, askan bi dina ci bénéficier bu baax. Hmm. parce que souvent dañuy dégg ñu naan euh, pétrole or noir source de conflit euh, maanaam daal dëkk bu mu am dëkk boobu boo moytuwul jàmm du fa am ci jalti jalt la nekk Sénégal naka la mën a def ba relever défi boobu continuer di exploiter pétrole di produit di jaay te benn fitna du fi am. waaw soxna si boo seetloo bu baax euh, dëkk yu jot a am euh, lu ñuy wax malédiction du pétrole muy euh, ñu ne tudd yeneen dëkk mooy ay Congo ay ñoom Sierra Leone ay ñoom Libéria ñu ci bëri bu ñu ñu def balaa ñuy def exploitation jotuñu teg ay bànkaas yu leer ay textes yu leer yoo xam ni ñoom ñooy textes yi ñooy définir nu ñuy exploiter nu ñuy partager production Sénégal nag jot na def loolu euh, am am nañu ay techniciens yu xarañ ñoo xam ni jot nañ xalaat ci loolu yëpp te loolu tamit bon ci régime Macky Sall euh, loolu tamit méritam la euh, jot na xalaat nu ñuy partager ressources yi ba ci ba ci génération future yi mooy xale yoo xam ni juddooguñu sax ñoom am nañ ci seen seen seen wàll donc euh, loolu mooy mooy tax ñu ñu mën a éviter euh, éviter conflit par exemple tey euh, bu ñu bu ñu jëlee clairement ressource yu jógee ci pétrole bi dugal ko ci lépp luy énergie verte mooy solaire éolienne dugal ko ci industrialisation bi dugal ko ci ci ci ci électricité bi mooy gaz lu ñuy woowee gaz to power donc loolu lépp dina am dina am solo trop te am na beneen Euh, nu mu tudd euh, texte bu ñu naan contenu euh, local boo xam ni jot na définir tamit collectivité territoriale bu ci nekk voilà lan moo war a nekk sa wàll ci ci mbirum gaz bi main bi ci nan la war a toll donc loolu yëpp ay aspects yu important la ay textes yu la donc point de vue juridique yoo xam ne ñoom ñooy éviter conflits yi ñu jot a gis ci yeneen ci yeneen réew yi. Hmm. Euh, peut-être euh, fi ñuy euh, daal di jeexale Christian Sambou moom mooy bu fekkente ni pétrole bi ñu ngi koy jaarale ni ñu ko war a jaarale maanaam di ko produire di ko jaay defaat ko ci Sénégal est-ce que mën nañu espérer dans cinq ans wala dix ans réew mi daal di soppi xar kanam. waaw bu baax a baax soxna parce que ci estimation yi boo jëlee GTA ak Sangomar ñu ngi ci sept cent cinquante milliards budget bi ñu ngi ci sept mille euh, sept mille euh, milliards donc euh, du lu négligeable du tout donc lu am solo la donc bu ñu ko jaaralee ci yoon bu ñu ko waxee ak transparence ak éthique ak redevabilité tamit gëm naa ni que dans dans quelques années sénégalais bu ci nekk mën na gis boppam ci ci ressources ressources naturelles yi donc euh, waa impôt tamit war nañ def seen liggéey ci wàllum boobu parce que bépp exploitant ngay ku ndaw ngay ku mag ngay euh, exploitant national wala euh, international da nga war a fay impôt donc impôt boobu tamit mooy tax ñu mën a construire ay hôpitaux construire ay tali construire ay école ba suñu doom yi mën a jàng ci ci école yooyu donc bu ñu gérer bu baax nu ñu ko waree ci anam bu ñoŋ suñu ressources yi naa ni dans dans dans ci lu mën nañu am euh, satisfaction par rapport ak suñu suñu pétrole bi ak suñu gaz merci Christian Sambou en tout cas ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci leeral yi ñu indil. maa ngi lay gërëm soxna si Moreau. voilà ñuy fàttali ni Christian sambo expert nga en géopolitique analyse politique jërëjëf encore. jërëjëf madame.